sing akan arara. Sebelum ana Lamine TV Lamine kai, yaay décoré yow brosse ana Amdi Fall Amdi Fall ani nga ana Amdi Amdi kai, mom moy décoré arara merci beaucoup sëñ Amdi yaay décoré pël <laughs> pël bi de xaw naa làmb yi

boros di gaay bofa ndiik a i mbey meke na Saly euh, wa axlu lamb Sénégal a a meke journée fa maak décora a décorer ke andona euh, den ngupu a taka ke saison fe na catégorie nu refna nak i ke mof fa champion fa leŋ neke wa de leya Babou Dieye wala o leye Brosse a ndep na Grand Mbagnick teni moftu neke afoni mbagana décorer na catégorie raw gadu fe yakarame ten jangu deuxiéme andame ka i mbaskan rek euh, te simin mboko te ena suran à travers ch tv fo sam go tv Babou Dieye simnam delo simin neke fete may tem waaw content na rek i bege agoye fop man ke

mais yow ay wala décoration bi par ak lu lamb Sénégal ah yow boobu Babou Dieye. non kontaan rek. Hmm. billaay wallaay keke moom a jega mi te motivé ama baax hmm. billaay wallaay kontaan am teen tigi tigi. Hmm. waaw. Babou Dieye ngi ka euh, ni décoration ki jàngu deuxième ak ka soo jàngu première est que mbaa cung année prochaine Babou Dieye euh, na première na première wala. waaw incha allah kaaga fop doonin na ɓay roog rek waaw ku jeg na daal rooga ma daal waaw bilaay content mhm. rek mhm. comme d'habitude xa ley ka axlu lamb Sénégal na journée fe den organiser a neeke waaw den moom ke de moom wax dëgg fa yen neex yàlla a sax tigi tigi waaw xeɗana den jam mhm. ke de te moƴo ret ba moƴo fi daal waaw Pape Diop noo préparé ta saison prochaine. ah comme d'habitude rek. bilaay walaay comme d'habitude rek. waaw hivernal daal. waaw. Hmm. Brosale ka fans club fans club ko wena mbege am. dina fop bege ama dina paax bege na den kontaan na den rek tigi tigi. billahi wallahi goy moom jegim ndabid den kontaan ama na den tigi tigi a paax a paax billahi wallahi hmm. kontaan rek hmm. to fe caa kon Bross euh, xa weet waxtaan fe ah waxtaan fay moom heya a grand ke mi dal mbañik mm-hmm. me ziare an a paaxa paax maages o paax a ref bilaay me ziare fa ibu fa neeke ma mm-hmm. yoonta fop me ziare a den Moussa Thiare me ziare mm-hmm. ñoom mbalam bira may o maages me bege an a ñoom mbay goye fop dal maago yem fop dal me ziare a den a paax to bege a den waaw ga'aam ne de taxama a paax a paax waaw fop daal kon bogo sax lay ka we se STV fa we Bamako TV. ah Goye mom contane na nun rek ñaana naan jam heɗana rogo yalla bisa nun bo keke la rim lakas mayu mayu magnu magnu dal nu contane waaw kontaan na nun a paax a paax non kaga moom maaga o la laaga moom jegim kali lima maaga mm-hmm. parce que ndjomo dal mm-hmm. waaw ndjomo mm-hmm. ok maaga moom njomo boko sal buge duk maana non maaga moom buggimo dug maaga dara dara mm. waaw mm. bilaay mm. anda fal ley moom mooy loolu quoi fal ley fa xeer waaw acay mbege am ah, jaajëf jaajëf <laughs>